mbokk talib yi ñi ngi leen di nuyu ci turu الشيخ مهود منتخى الخليفة العام لطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه نيو في تاي سي نديغلام غير جوتريل كو اك تانت اك غيرم اك يوبنتي ييما يوبنتي ناخ ديمبلا وون خيو خيو بي دي اوبيتال جاكا جي منما لوم خات خات mu wax ma ay kàddu lu mu wax de naa ko jotali ndax maa ngi nii incha allah bu àndee doolu suñu borom jëm tubaa ndax màggalu tubaa gi xam nga ne agsi na. Mm-hmm. ndax suba la séntu bu njëkk kon kenn mënatut toog fenn. kon Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fi Serigne Touba mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp cant gi nag mu ngi koy tàmbalee ci. ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi di njabootu Serigne Touba gi nit dañuy wax ne laa shukra ala waajib waaye dañuy wax ne laa shukra illa ala al waajib ñoom ñëpp ànd nañu moom bis yi ni mu ko bëggee woon di sant mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon Serigne Touba di sant itam taalibi Serigne Touba yi ndax ñoom jëf ci seen jëfa kon kenn waru leen a sant waaye nag xam nañ ne bis bi xatoon na ba bari na sax ñu bokk ci sëriñ bi ñoo xam ne ci tëli lañ jógee waaye loolu lépp ñoo xam ne la suñu kilifa gu baax nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ñaan bu nangoo sonal borom loolu rek la di gërëm mboolem ñu mu diine lislaam bàyyiwu ci kenn ndax ñoom itam dégg nañ message su li nga xam ne Serigne Touba doon na ko woote dégg nañ ko muy loo xam ne da koo sukkandiku ci wax yàlla suñu borom jëm wax ne wa antasimu bi illahi jami'an wa la tafarraqu wa anna hazihi ummatukum ummatan wahida wa anna rabbukum fa'budun kon ñoom ñi nga xam ne ñooy bokkam yu tedd yi nga xam ne ñoo la bokkal islam bi bàyyiwu ci kenn waaye buñ tànnee sëriñ Pape Malick si mi nga xam ne moo fi teewaloon sëriñ Babacar si Mansour ànd ak sëriñ Mansour si Al Hadj Abdoul Aziz ak mboolem délégation bu mag bu ñu àndal ñëw siyaare sa sëriñ bi ca kolobaan ngir fetli diggante ñaari kër yi waaye ñëwaat itam xëy julli si ànd ak sëriñ bi lépp ak mbégte ba julli gi jeex sëriñ bi neen mi ngi koy santu bu baax di ko gërëm ci taxawaayam ak yéeneem ak xam na ni moom ab defarkat la naka jekk noonu la ko yàlla mberal di ko yóbbanteem nuyoo ci kilifaam gi nga xam ne moom la fi teewloon di euh, Serigne Babacar Sy Mansour di al xalifatul di tarixati tijaaniya buñ ko tuddee nag tuddaan nañ mboolem këri diine yi senegal yëpp bayuñ kenn euh, tàmbale ci njabootu maam Abdoulaye Niass Kawlax te buñ ci tuddee tuddee njabootu Serigne Khalifa ak njabootu. cheikh cheikh al islam alhaaj ibrahima Niass di eh, nuyu itam waa Ndiassane ndax xalifa général di Ndiassane ñëw na fi moo fi teewal di nuyu itam suñu mbokki laayeen yi di nuyu itam suñu mbokki waa Canaba ñoom ñëpp ñëw nañ ak mboolem këri diine yi njabootu cheikh alhaaj ñëpp ñëw nañ ak mbooleem këri diine yi Sénégal buñ xam naa ne lim bi moom boo yeexee da ngay fàtte. Mm-hmm. waaye nañ xam ne ñëpp ñëw nañ. ak mboolem suñu mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñooy lébu yi. nga xam ne ñoom seen digg yoon bu yàgg la seen teraanga ak seen jëf ak seen i lépp ñëw na ak mboolem association islamique yi di sant itam ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon bitim réew donte le sëriñ bi sax yóbbante woon ci président xamal ko ne ngir xataayu bis bi jéggal na président yi waaye ñu ci bari yabal nañ ay ndaw ñu yabal ay ministre ñi yebal ay seen ñi nga xam ne yooyu wàllu islam ji seen réew réew yu bari muy Gabon di Côte d'Ivoire di Mauritanie di Gambie ak yeneen réew yu bari di nuyu di sant di gërëm ki nga xam moo bàyyi ko rabitatul aalamin islami di ligue islamique mondial euh, ñoom itam euh, kilifa gu mag bàyyi ko na ñëw ci seen njiit ki nga xam moo bàyyi ko al Azhar mooy ki topp ci moom moom itam ñëw na ak yeneen ñu baree bari ñoo xam daal lim nañ leen église bi. église itam ñu ngi gërëm ci euh, nga xam ne mooy ci ko jite. Mhm. mooy itam ñëw na ci sëriñ bi ngir euh, jokk bokk dëkkandoo bi ndax dëkkandoo gi yàllaa ko def mhm. kon ñoo itam ñu leen di gërëm di gërëm ñëpp di gërëm senegal yëpp ndax xam gi nga xam ne bis bi seen bisa ñu ànd koog moom bokk koog moom mhm. yéeg ne itam lii du ndamul rek yoonu murit waaye ndamul islam la ndax yoonu murit bala ngaa nekku murit dangay ngay nekkub jullit kon lislaam mooy li ñu ëpp ñun ñëpp kon nag jullit yi ci réew mi yëpp maase nañ ci xam ne li sagub lislaam la ñoom ñëpp yëg-yëg boobu lañ ci am yëg-yëg bi ci am euh, yéesut yëg-yëg bi ci wàkk Sëriñ Tuubaa am loolu nag sëriñ bi noonu la ko bëggee woon bëgg ñu xam ne ji jàkka ji jàkkee lislaam la julli yëpp ko bokk ñëpp ñooy di fi julli si kon sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñëpp bàyyiwul kenn kuñ tudd kuñ tudd hmm. euh, di euh, ni ko sëriñ Ba kii fay waxee di rafetlu bu baax li nga xam ne yàlla suñu doom dogal na ko mu xewe ci jataay bi muy euh, déggoo gi nga xam ne fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum loolu la Cheikh Mouhamadou taxa jëfandikoo muy loo xam ne àdduna sépp koy rafetlu rawat na ci teewaayu kër diine yi muy jug déggo gi nga xam ne yàlla def na ko ci diggante président Macky Sall moom mi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey ak mi nga xam ne moom la yàlla moo fi nekkoon te joxoon barab bi ne ko suñu mbokk yi waxee sant gi waxoon naa ko jërul dellusiwaat day guddal wax ji. waaye li yàlla def ci seen diggante ñu ngi ñaan suñu borom mu sàmm ko ndax sëriñ bi kat boo koy def dara nekkalu ko ci waaye li ci jublu rek xam ne lislaam santaane na ko xam na itam jàmmi réew mi ngi xam na itam dalug réew mi ci xam ne itam réew mi ko bëgg moo tax nag yàlla defal na ko ci feex ba loolu sottee ci loxoom ci teewaay ñi nga xam ne ñoo la bokkal këri diine yi kon loolu ñu ñaan suñu borom sàmm ko ba yéene ji ci sëriñ bi am ak ñoom ñaar ñi ko seq yéene ji ñu ci am mu doon loo xam ne njariñu réew mépp lay